mbokk téléspectateur u Leral TV ñu baaxoo dina suivre fii ci réew mi ak ci bitim réew nuyu nañu leen ànd ak mbégte fas yéene waxtaan ak yéen ci xasida bi di burdatul madiah tey nekk suñu ñetteelu buntu ñu fas yéene yegsi ci fi imam yi di soog a tàmbalee nag di tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa xool naa leen ni tagg ko xéewal la tagg ko njëriñ la waaye ak jëriñu la imaam Busayri ni zalamtu sunnata man axya zalaama ila an ishtakat qadamaahu durr min waramin nee na zalamtu tooñ naa sunnata man sunnas ki nga xam ni axya zalaama dafa daan dundal guddi gi lan la daan dundalee guddi gi ci ay naafila rek la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nekk mu ne yenent bi daana naafila ila anishtakat dem ba nga xam ni ma ngay tawat di jàmbat xadamaahu ay ndëggoom ay tànkam min war a mi dem ba neewi ndeysaan imaam Busiri nee na man mi nga xam ni dama ni dama sopp yenent bi man mi nga xam ni dama ni mooy suma royuwaay mu ne tooñ naa sunnam de ndax moom da daan naafila guddi ba tànk yi néew yi léegi man mi ne sopp naa yonent bi fan laa toll ci naafila loolu loolu la bayit bi bëgg a wax xadamaahum durra min warami mu ne waaye yamu ci de wa shadda daan na takk min sarabin ndax xiif ahshaahu ay baljatam mooy ay wetam mu ne wa daan na ko taxañ takk ko taxtal xijaarati ci ron ay xeer jël ay xeer takk biir bi kashxan mu def ko ab legg boo xam ni ci la daan dëgër laayoo mutrafal adami muy aji nooy ji ab der yonent bi sallallahu alayhi wa dafa daan jël lu mel ni ceinture la daan jël jël ay xeer takk ko biir bi ngir am dëgër waaye dëgër googu ngir mën a naafila mën a jaamu suñu borom mën ko delloo njukkal sant ko ci xéewal yi mu ko defal moo tax mu daan def loolu cheikh xam nga neen salaa sallam daana toog ñetti fan këram ciin du fa tàkk ndeysaan buñ ko mësaan a laaj ne ko lii nga nekkee nii xanaa sa borom jéggalu la say bàkkaar yi jiitu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen afala akuna abdan shakura waa ndegam man mi yenent bi sa man mi yàlla jéggal samay bàkkaar ba jéggal ma yi ñëwagul xanaa man maa ko war a sant te sant gi may sant yàlla lenn rek laa ko mën mooy ni tey saa bu ma defee sama farata rek ma teg ci ay naafila moo tax wa raawadathu ljibaalu summu min zahabin an nafsihi fa araaha ayyama shammi wa raawadathu doon na ko sàkku di ko proposé moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sangu-sang yi de moo raw gaañi de ndax cheikh liy wane ni moo raw gaañi aljibaalu summ min zahabin montagne yu màkka yi montagne yi ñoo doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa di wax ak moom de montagne yi ne ko tàllalal sa loxo nga ne allahuma ñun montagne yu màkk yépp ñu nekk ay or nga doon multimilliardaire ëppale fi waaye ad nafsi yi mu jombale ko boppam fa araha ay yemachanami nga gis yenent bi ci jom jomu boppam mu ne jombale na boppam tey di yor alal ju ne gàññ mu jombale ko boppam ku dem ba ay montagne naan la tàllalal sa loxo ñun ñëpp ñu soppeeku nekk or nga ëppale fi kon xam nga loolu bu yonent bi tàllaloon loxoom heure bi kon ba àdduna di tukki kenn du ko ëppale sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wa akkadat nag feddali na zuhdahu dëddoom fiihaa ci àdduna daruratuhu ak loram inna darurata lor nag ah la taadu du jalgati mukk alal asami ci ñi nga xam te ni woy fegu yi lañ ndeysaan sàmm yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa loru gi muy loru ci àdduna ñàkk lekk gi muy ñàkk lekk ñàkk am dépense mu am dépense ndax daana wax ni daanañ teg ay fan yuñ dul yoo xam ne cin du tàkk ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Aïcha ñu ne ko lu ngeen daan dundee mu ne ñaari ñuul yi ñu ne ko yi ñuul yi mu ne mooy tàndarma ak ndox xoolal Cheikh yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sangu yi daana toog ñàkk dépense jël ñetti tàndarma lekk naan ndoxam ñetti fan sallallahu alayhi wa sallam moo tax léegi ndeysaan daa am ñu ko dul dégg léegi-léegi nga gis ci pénc ndeysaan nit ku yàlla defal teraanga rek mu commencé xas ñi amut xeet ñi amul naan gars yi dañoo ñàkk fayda man ba may liggéey damaa ñafe damaa góor góorlu damaa nàngam <laughs> mu ne am na ko ëpp li ngay def te ndeysaan mënut a am la nga am waaw moo tax waykat ba defa ni coono bu bari taxuta am waaye ñàkk def dara ba def coono itam taxut a am terewut am kon xéwal yàlla rek ku koy joxe ndeysaan muy wa kayfa taddu naka lay woowe ila dunya ci àdduna dawratu man loru koo xam ni lawlaahu bu dul woon ak moom sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lam taxruji dunia àdduna du génn minal adami ci ñàkk kon àddam àdduna bi li tax mu exister kenn rekk tax mu exister sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan moom moo tax àdduna exister lam tax ju taxriju dunya ne al adam bu dul woon moom àdduna bi du génn ci néant parce que àdduna dafa jóge ci néant mën a ñëw ci concret dafa jóge ci néant ñëw ci concret ñun dañoo jóge ci néant ñëw ci concret parce que amuñu woon bi ñu yàlla amee la ñu nekk ci existence mais laata ñuy nekk ci existence ci la ñu nekkoon ci inexistence boobu noonu ci néant la ñu nekkoon kon dañu jóge ci néant ñëw ci concret parce que dañu nekkoon ndox kese nekk ci suñu ndiggu baay yi ñu jëlee ñu ci suñu ndiggu baay yi yóbbu ñu ci suñu roxumu yaay yi denc ñu foofu ñu génn foofu dund ci àdduna bu ñu fi dundee as diir dañuy génnee foofu yóbbu ñu ci bàmmeel bu ñu demee ci bàmmeel yi bu ñu fa dekkee moom mooy bisu penc moo tax mu ne bu dul woon yenent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna du exister parce que yàlla moom moo wax ni kuntu kanzan muxtafian lam ora faax babtaan oraf ne man dama nekkoon benn trésor boo xam ne dama nëbbatu woon ba ma bëggee ñu xam ma fa xalaxtul xalqa ci laa bind nag sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye fa bi yaarifuuni ci moom la ñuy jaaree pour mën ma xam man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla nekkul qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhbibkum allah yàlla wax na ci alquran ne bu ngeen ma bëggee yegsi ci man yonent mu ne yàlla moo ko wax ni suñ bëggee yegg ci suñu borom nañu jaar ci moom sayyidina muhammad ñu sopp ko suñ ko toppee yàlla def ñuy bëgg sax ñun moom sallallahu alayhi wa sallam waaw kon kooku àdduna mënu koo détourné <laughs> ah parce que àdduna bu ko mënoon détourné ba mu xiifee dina sàkk pexe dina tàllal loxoom <laughs> dina saalit ba ñaan bu ñaanee montagne yi dañuy nekk ay wurus bu boobaa mën na nekk xas ëllëg ñu ne seen yonent bi ba mu xiifee daa saalit dem ñaan montagnes yi nekk ay wurus te loolu mënoon na nekk tache noire ci lislaam imaam Busiri ne muhammadun xolal ba mu tàmbalee di ko tàgg ba léegi mu ngi soog a tudd tur bi mu ne muhammadun mooy muhammad gis nga cheikh xawma ma li may dal mooy dal bu bari waaye gis nga tudd baatu muhammad ni muy neexee ci xol ndax abdul muttalib baa mu yonent bi sallallahu alayhi wa ba yonent bi juddoo la ko téye tuddee ko Muhammad ñu ne ko lu tax nga tuddee sa sët bi Muhammad waaye laata mu koy tuddee Muhammad Amina di yaayu Seydina Muhammad jotoon na ndigal bu jóge ci sunu borom am lu ko wax ni ko tuddee ko Muhammad min baadi xat xalaa waawun yuqaalu laha ha anti xummilti badran sayidal umami ida wadaatihi sammihi muhammadan al amra uktumi ay kitmaani fa taxtanimi ci xilaasu zahab sayd alxaaji malik si radiallahu anhu ndeysaan bi salaa bi ko amina ëmbee ba mu am 6 mois ci biir yaayam lañ def annonce su turam ne nañ ko tuddee muhammad waaye nañ ko muslul defal ko muslaay ba seytaane bañ a am ci moom yoon al amraktu mi ay yëkkit maa ni fa taxtani mi ñu ne yaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nëbbal secret bi nag bul ko wax kenn nag parce que boo ko waxee yahud yi buñ ko déggee mën nañ la fekk sax rey la wala liir bi du judd walla liir bi sax du judd day saan mhm. moo tax mu ni ah nabiyuna mu ne waaye muhammadun mooy muhammad waaw nay nii moom mooy sangu mbindeef yi sangu univers yi waaw sayidul kawnayni moom mooy sangu univers yi wasaqalayni ak ñaari ndijj bopp yi xam nga asaqalay moom mooy nit ak jinne min urbin ci arab wa min ajamin ak ci ajam ak ci ajam xam nga ajam mooy làkkkat urb moom mooy arab mu ne yonent mooy sang univers yi waaye mooy sang nit ak jinne xoolal garaat fa la mën a yem univers yi espace bi asamaan ak suuf lépp yow yaay seen sang ñu ne nit ak jinne ñu ne yonent bi yow yaay seen sang wal fariqayni ak ci ñaari kuréel yi nga xam ni moo xam ñi nekk arab ñépp ci giiru arab yonent bi mooy seen sang ñi nekkul arab yonent bi moom mooy seen sang ajam mooy làkkkat comme ñun parce que dañ naan arab ak ajam buñ ne ajam rek mooy képp ku nekkul arab mu ne nabi yu mooy suñu yonent bi nga xam ni al amiru moom mooy aji digle an naahi di aji tere ji nga xam ni fala ahadun amul kenn ku mel ni moom cheikh seydna muhammad abarra ku gën a baax fi qawli laa moom laawam déedéet du yonent bi moo baax si ñun wala na ami di caagi ne ci waawam tamit waaw yonent bi moo baax si ñun waaye déetam moo baax ci ñun ndax bu ñu yonent bi digle ne nàngam moo baax ci ñun bu ne tere nañ nàngam moo baax ci ñun huwa moom boo ko bëggee xam moom yonent bi imaam Busayri nee na alxabibu mooy soppi ba allazi bi nga xam ni turjaa dañuy yaakaar shafaatu waram moom ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam c'est l'intercesseur <laughs> maanaam mooy nekk l'intermédiaire entre nous et notre Seigneur Dieu moom mooy kii ñi nga xam ni moom mooy ñuy tinu ëllëg sallallahu alayhi wa sallam li kulli hawlin waaw ci bépp tiit boo xam ne rek ndeysaan li kulli hawlin boo xam ne muqtaxam yi danañu jànkonteel ak moom minal ahwaali ci tiit yi ëllëg ëllëg yawmal qiyaama ñëpp tiit nee na bu ñu tiitee ba ñëpp jaaxle ba ñëpp jannaxe mu ne ah kenn la ñuy yaakaar foofu kenn lañuy yaakaar ak ram moom moom sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam turja shafaatuhu ndeysaan li kulli hawlin min al ahwali muqtaxami bépp tiit boo xam ne danañ jànkonteel ak moom foofu ndax moom daa ilallahi dafa woote ci yàlla mu ne ba mu wootee fal mustamsikuuna bihi ñi jàpp ci moom sayiduna muhammad mooy ci sunnaam mustamsikuuna dañoo jàpp bi xablin ci buum boo xam ni xayri munfasimin du dopp mukk buumu yonent bi sallallahu alayhi wa muy yoonam diineem bi du fay téereem bi du fay waxam du fay ba jamono di jeex moo tax mu ne faaqa nabiyiina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo féete kaw yonent yëpp nan la leen féete kaw mu ne fii xalqin ba ñu demee ci examen xool yeneen yi kan moo ci dàq kan moo ci gën a rafet ku ci gën a taaru xam nga sa xel day dem ci Yuusuf danga naan wax naan Yuusuf dafa rafetoon waaye ndekiti Yuusuf dammitu yonent bi sallallahu alayhi wa ci taaram bi gën a tuuti moo moo dàq Yuusuf Yuusuf bi nga xam ne ay jigéen gis nañu ko ba dagg seen loxo muy nàcc te yëgu ñu seen loxo mi ngi nàcc ndax rafetaayu yusuf ah xaasha ñi dem ba ni xool yusuf ne yusuf mi du nit ki daal daa ni benn malaaka rek buñ ñu wàcceel la rek hmm? ndeysaan mu ne faaxa nabi yi ne ndekete yenent bi ñoom ñëpp moo leen jógati fi xalqin ci jëmm moo leen dàq ñoom ñëpp wa fi xuluqin ci ko moo raw yenent yëpp te yenent yooyu di ay collègue ay camaraatam walam yu daan muuhu amul ci kenn ku jeganteeg yenent bi ci daraja fii ilmin ci xam-xam wala karamin du caagi nag tedd nga amul ci kenn koo xamante ni yow yàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jege yow léegi nag mu ne wa kulluhum ñoom yenent yëpp nag min rasulillahi mu tamit suñ aji sàkku lañ nag min rasulillahi ci yenent bi sallallahu alayhi waaye yenent bi waaye kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam xoolal yenent yi bu ñuy toogaanu di sàkku ngir am ay daraja ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sàkku bi ñuy sàkku am dara ci yenent bi xarfan min al bahar dafa mel ni kuy sàkku di tànq ci biir géej la aw rashfan min ad diyami wala kuy sàkkoo di muucu ci taw boo xamante ni taw dëtt la mooy taw boo xam ne day taw guddi ak bëccëg mais taw bi du ànd ak ay dënn xam nga mooy am na taw yoo xam ne day yàgg taw bu yàgg lay doon mais taw bu duus duus nekk waaw dafay sotteeku di sotteeku doo dégg bruit yaa ngi dégg mu ngi sotteeku mais mën nay taw taw bu yàgg la ñuy wax taw dëtt moom mooy diem mu mu ni wa waaqifuuna ñoom yeneen yi kat taxaw nañu de la day fa moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inda xaddihimi ñoom fi seen limite yam waaw inda xaddihimi min nuqtatil ilmi ñoom ci seen dayo fi seen limite fi ñu yam xam nga nu mu mel comme nuqtatul ilmi mi ngi mel ni par exemple tey boo jëlee point li ñu naan mettre les points sur les i <laughs> nga jël point nee yeneen yenent yi ak seen misaal ak yenent bi dafa mel ni benn point boo jël def ko ci kii rek la kon li leen yenent bi rawee bari na te xoolal yenent yi min nuqtatil ilmi la ñu indi ci xam-xam yëpp nga ne maam Ibrahim ne maam Ismail ni Yusuf ni Moussa ne euh, indi Haroun indi Yaxya indi Zakariya indi Ayuba hmm? ñooñu ñëpp nga indi leen ci ay yenent waaye teewul kii mooy seen sang Seydina Muhammad ñoom dañu mel ni rek benn point rek bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tomb rek la aw min chaklatil xikam yi bu fekkee ci arab la masque boobu ngay gis daf ñu mel ni ñoom masque rek lañu min chaklatil xikam yi ci masque li nga xam ne moom mooy sagesse yi mooy xam-xam yu sew yu nga xam ne ku ko dégg daf lay émerveiller mooy la sagesse fa huwa moom yonent bi boo bëggee xam mooy kan suma sopp bi seen sopp bi yéen téléspectateur leeral tv nee na fa huwa moom yonent bi allazi mooy ki nga xam ni tàmm mat na maanaaxu biiram yonent bi biiram daa mat sëkk waaw biir bi nag waxuñu ci la ventre maanaam mooy baatinam baatinu yonent bi dafa mat sëkk wa suuratuhu extérieur am dafa mat il est complet intérieurement extérieurement sallallahu alayhi wa sallam su mastafaahu nee na tax nag yàlla tànn ko nag xabiban def ko muy soppe bari un nasami yàlla mi nga xam ne moom moo bind mbindeef yi moom moo am sañ-sañam jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy soppee ndax am na ñu dem ba bëggoon di jaxase yonent bi ak maam Ibrahima. naan yàlla kat tànn na xaritam mooy Ibrahima yonent bi ne bu dee maam Ibrahima mooy xaritu yàlla itam may soppe <laughs> ah waaw xam nga soppe dafa ëpp doole xarit soppe dafa ëpp doole xarit moo tax mu ne munazahun yonent bi ku ñu soril la ku ñu sellal la an sharikin ci di ko bokkaale fi maxaasini yi ci ay mayam maanaam nga naan diw ak yonent bi dañoo nduroo daal dañoo nduroo ay garaat déedéet imam Busiri ne bañ na loolu mën a zëwul ku ñu soril la an sharikin ci di ko jéem a booleeg fi maxaasini yi ci ay taaram ay mayam fa jawharul xusni mu ne ndax wuru si taar bi la quintessence de sa beauté xayru <laughs> munqasimin nee na xolo loolu moom du lu ñuy séddale on ne partage pas la beauté du prophète la quintessence de sa kenn du ko séddale non loolu moom lu unique la lu particulier la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne daa imaam Busayri nag mu ngi mettre en garde nee na bàyyil maddaat min nasara li nasaraan si di woote fii nabiyihim ci seen yonent bi nga xam ne moom mooy Isa bnu Mariam Isa bnu Mariam moom mooy Jésus Christ mu ne li ñuy wax ni Isa doomu yàlla la imaam Busayri nee na yow loolu moom bul bëgg yenent bi bul tagg yenent bi ba yegg ne yenent bi yàlla la déedéet lu tax mu ne waaye waxkum bi ma chita nee na nag ginnaaw waxoo ne yenent bi yàlla la nee na bépp garaat boo ko taggee rek yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayoo na bi ma chita cheikh daal imaam Busayri nee na ci gàttal feeg ne woo yenent bi yàlla la jikko boo ko adressé la rek yenent bi moom la àttal na ko waaw nee na maanaam doo ko jox jikko bu màgg bu ñëpp di naw ci nit bu ëpp yonent bi déedéet lu mu rafet rafet boo ko ko kolee rek mu ànd ak moom wax takk mi nee na nag na nga xereñee nag booy tàgg yonent bi danga koy xereñee de cheikh ko bëgg booy tàgg yenent bi nga tàgg ko tàgg bu sell moom la suñu maam Cheikh Ibrahim Niass al Kawlaxi waxoon mu ne unazimu durra lafzi fi zikri wasfihi wa ahsin bi wasfi l badri durran munazama moom la Baay Niass wax ne bu ma dee way yenent bi unazimu durra lafzi damay jël wurusu baat yi gën a cher ci arab fi zikri wasfihi ci di décrire maanaam la beauté du prophète bàyyi ne fa ahsin rafetalal bi wasfil badri ci booy melal yenent bi durran mu nekk wurus boo xam ne munazzaman da nga koy organiser maanaam danga koy defal design isa ak ñoo yenent bi mu ne fa inna fadla rasulillahi laysa laysa lahu haddun non wan sub mu ne wan sub na nga askanale ila zaati yi ci jëmm machita lu la neex waaye booy tàgg yonent min ci tedd nee na lu soob ci tedd nga sax toogal di imaginer rek xalaat lu rafet rafet rafet rafet lu mu rafet rafet nga dëkkaale koog yonent bi ci tedd wan sub nee na askanaleel ila qadrihi ci dayo yonent bi machita lu la neex min idamin ci màggaayam waaw te danga am loo ci tagg rek yonent bi yeyoo na ko waaye màggaayam loo ci tagg yonent bi yeyoo ko ndax fa inna faddala rasulillahi ngëneelu yonent bi laysa lahu xaddun amul limite de mbaaxu yonent bi amul limite fa yo xaddun limite boo xam ne fa yoori ba ba des na ko wax ji ko tudd ci kaw naatiqun aj wax bi famin ci gémmiñam <laughs> maanaam cheikh ba ñu commencé ba léegi di wax ci yeneen bi maam bu sëy daa mel ni ñun lay waxal de nee na dix jours yëpp bu ñu waxee ci yonent bi waxuñu dara <laughs> nee weer bi weer bi ñuy tagg yonent bi yëpp waxuñu dara at bi waxuñu dara bañ ko dalee tagg ba léegi waxaguñ dara fa yoori ba an naa tëxoon bi fami <laughs> ñaata lañ tagg yonent bi Seydi Hadji Malick ngi ne denc xilaasam 1052 bayit te imaam Busayri nee na waxaguñ dara ñaata saxaaba ñoo ko doon way baanat suaadu fa qalbil yawma matbuulu mutayyamun israha lam yufda makbuulu wa ma suaadu gadatal bayni israhalu illa agannu gadidu tarf makxuulu kooku moo wayoon yenent bi ba yenent bi ci jotaay ba musul bi manto ba solal ko te kooku daa saaga woon yenent bi yenent bi ne kooku gis nañ ko rey <laughs> mu ñëw jéggalu yenent bi waay ko waay ba rafet yenent bi kontaan ci way ba yëkkati manto ba solal ko sallallahu alayhi wa sallam baax te xam teraanga sayyidina muhammad imaam Busayri nee na ah lu ngeen fi wax lu nekk mënu leen koo tudd ba mu jeex ndax law naa sa bat mu ne yenent bi bu ñu askanale woon xadruhu darajaam dëgg aayaatuhu ci ay kéemtaanam ay daman ci màggaayam cheikh ahya dana dundal ismu turu yenent bi yuddaa xiina yuddaa saa buñ ko woowee daari sa ramami way ràppi yax ya imaam Busayri nee na Yonent bi sallallahu alayhi bu yàlla wane woon dayoom yépp maanaam bu wane woon dayoo Yonent bi sallallahu alayhi wa wane ay maqaamam nee na boo demee ci bàmmeel nga taxaw ci bàmmeel bi tudd fa Seyduna Muhammad néew ba jóg <laughs> néew ba day jóg mu ne mais yàlla <laughs> yàlla wanewul lépp yenent bi ëllëg la ñuy xam lépp yenent bi ci aljanna waaye balaa ñuy dugg aljanna bu ñuy ràmm keroog yenent bi sallallahu alayhi wa bu ñëpp jàqee moom rek kay dul jàq te mooy njëkk génn ci bàmmeelam sallallahu alayhi wa moom la yàlla di njëkk lijjanti dossier ndax moom moo ko wax mu ne ati baabal jannati yawmal qiyaamati fa astaftixu fa yaqulu alxaazinu man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu alxaazin bi ka umirtu an aftaxa li ahadin gayrak nee na ëllëg yamal xiyaam damay ñëw taxaw buntu aljanna nee na ma ñëw ci buntu àjjana gardien bi ne ma yow la kan ma ne ko man la Muhammad mu ne ma ah yow lañ ma jox ndigal ne ma balaa kenn dugg àjjana yaay dugg ba pare <laughs> sallallahu alayhi wa wallaay ku ku ku ku xamul dayoom rek xamoo ko lam yam taxin naa mën a yenent bi nag nattoowuñu dara lim ñu indil ci diineem bi maa loo xamante ni taayal uqul dafa dépassé suñu esprit yenent bi lim ñu indil nee na amul lu ci dépassé suñu entendement dégg nga ndax lim ñu indil yépp dafa plausible dafa rationnel mm-hmm. moo tax xel mu sell da kay nangu xersan alayna mu ne yenent bi daa xeer ci ñun rek bëgguñu moo tax falam nartab moo tax ñun nag sikki sàkkawuñ walam nahim te gëlamuñu te amuñu benn lu ñuy gam-gamle ci li yenent bi sallallahu alayhi wa indi mu ne ayal wara lottal na mbindeef yépp nag fahma maanaaw xam dëgg-dëgg yenent bi maanaam nous sommes capables hmm, de comprendre li nga xam ni moom mooy l'essence ou bien li ñuy tuddee euh, le poids du prophète sallallahu alayhi pour ñu xam ko dëgg dëgg dëgg mu ne fil qurbi fa lay sa yuraa fil qurbi nee na fa lay sa yuraa doo gis fil bi ci lu jege wal bonde ak lu sore fii xayru mun fahimi waaw lu dul ne da ngay dem ba nit ki dootul day mujjee wegem xam nga ko wegem mooy ku dem ba amatul argument amatul lu mu wax mooy ni léegi-léegi nga gis dafay dal sax ñu baal ñu misaal bi ñuy joxe nit ku ub làmb ñu naan roi des arènes xam nga nit ku tëj ci jamono ñu dema dema dem ba mënatuñ ko dara ñu ne ah kay sawaay sawaay mu ngi noonu rek kenn mënul ci moom dara ñu far koo bërgël waaye mooy ku wegeem dem nañ ba ñu ngi jéem a tudd xam kan mooy yeneen tu mais na ngay dem dem ba boo demee ba toqi ba amatoo gi da ngay mujjee rek noppi mu ne dafa mel ni ka chamsi comme jant tazharu lil aynayni min bu'din mu ne daa mel ni jant boo ko gisee mu sori nu muy mel saxiratan dafay tuuti waaye ni muy tuutee nii ba tukki lu tarfa min amami nee na bu fekkee ni da nga ko jege dafay jafe pour nga mën a xool jant bi xam nga boo dee ba ci jant bi tiim ko mënoo jàkkaarloo moom di ko xool loo ko gën a jege mu gën a jafe gis jant bi waaye loo ko gën a sori ni mu tuutee noonu. mu ne kon misaal la yonent bi noonu la mel waaw maanaam dafa bëgg wax ni rek kenn mënul xam dara nu mu toll sallallahu alayhi wa sallam mu ne wax kayfa yudriku fi mu ne ñun ñi nekk ci àdduna nan la ñuy xamee dëgg-dëgg yonent bi son essence daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuñ koy xamee ñun ñi nga xam ne ay nit lañ ñoo xam ne ñi ngi nelaw rek ñoo xamante ni tasallaw miis nañu anhu ci moom bil xulumi ci ay gént ñun ñi tëdd di nelaw di gént rek mu ne nan la ñu mën a xam dëgg-dëgg yonent bi mu ne fa mablagul ilmi daal dayoo xam-xam daal cheikh nee na imaam Busayri fii annahu basharun ne yonent bi nit la rek waaye nee na li muy nekk nekk nit wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi mooy ki gën ci nit ñi mooy la ma doon wax ca njël njëlbeen wakullu aay nee bépp kéemtaan boo xam ne atar rusulul kiraamu yonent yi ñoo ko indi bépp miracle bu yonent yi indi rek fa innama miracle yooyu yëpp ittasalat xam nga fan lañ jokkoo ci yonent bi ci leeru yonent bi bépp miracle bu prophète def maam Ibrahima bañ ko dugalee ca safara sa ci barke yonent bi sallallahu la génnee ca safara sa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim yontu yàlla ayuba ba ko feebar ba dalee ba muy mucc ci feebar ba ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ci ba ko firaana dàqee mu dugg ca géej ga la ko muccal fan la ko jële ci barke bi sallallahu alayhi wa ci leeram Aïssa ba muy dundal ku dee yontu yàlla Aïssa loolu barke boobu fan la ko jëlee secret boobu fan la ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga topp ko noonu ba ak lépp miracle loo xam ne yonent yi rek def nañ ko fa innahu moom yonent bi chamsu fadlin nee na mooy jantu ngëneel hum ñoom yonent yi kawaakibuha nee na ñoom ñooy biddéew yi yonent bi mooy jant bi nee na yeneen yonent yi ñoom ñooy biddéew na dañuy feeñal anwaaraha ñoom seen leer ma ngay feeñee lin naa si ñeel nit ñi fi zo fi zolami ci lëndam ya xam nga yonent yi ak nit ñi leen toppoon ñëpp ñu gindi leen ba jaaral leen ci siraatal mustaqim ba yóbbu ñoom ñi leen gëmoon na laataa yonent bi sallallahu alayhi wa di ñëw waaye ñoom leer googu ñu amoon bay gindi nit ñi dugal leen ci diine ñu wéetal yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seen patron loolu yëpp ñoom ñi ngi ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax moom mooy jantu ngëneel bi yonent yi ñoom ñooy biddéew yi mu ne akrim waaye teralal akrim teralal bi xalqi nabiyin ci jëmm yonent bi bind yeneentu bi boo xam ne zaanuhu li ko rafetal xam nga yonent bi lan moo tax jëm mu gënoon rafet xam nga nit saan cheikh dina taaru am beauté fisik nii a fekk jikko ju baaxul jikko ju bon ja day nëbb taar ba mais nit bu amee jëmm ju rafet ba noppi am jikko ju rafet taar ba dafay gën a yokk moo tax jikko lu am solo la xam nga jikko loo xam ne bu fa fekkee taar yokk ko bu fa fekkul taar itam dina fexe ba nga am taar mu ne teralal bind yonent bi nga xam ne li ko rafetal jikko la ndax yàllaa koo ko taggee ci alquran bil xusni mustamilin mu ne lu rafet la ram la làmboo moom Seydina Muhammad mbaax rek la xam bil bishri ci bégle mbégte mi muttasimi nee na yonent bi nee na loolu lañ ko màndargale mu ne kat zahri yonent bi boo bëggee xam rafetaayam nee na kat zahri dafa mel ni fleur fii tarafin ci resplendissance te da nga yonent bi daa mel ni géej waaye wa dëhri yonent bi daal dafa bari yitte waaw fii himamin dafa mel ni jamono la ci himamin bayit bu rafet a rafet a ngi nii tey ci wàllu littérature nee na bi boo koy misaal ci métaphore la utiliser mu ne dafa mel ni une fleur resplendissante boo ko gisee ci jëmm ji mu ne boo ko xoolee ci générosité maanaam ci noblesse yenent bi dafa kawe bu mel ni weer mu ne nga xool yenent bi ci générosité nee na mu généré ba mel ni une mer abondante une mer débordante ci tabe mu ne nga xool ko ci yitte yonent bi mel ni jamono mel ni jamono ci yitte moo tax mu ne ka annahu dafa mel ni moom wa huwa moom yonent bi fardun fi jalalat min jalalatihi fi askarin xiina talqaahu wa fi xachamin mu ne yeneen bi sallallahu alayhi buy dox moom kese da ngay foog ni benn armée bu dajaloo di dem la <laughs> sallallahu alayhi wa sallam <laughs> am na dafa mel ni boo dajeeg moom sax daa mel ni koo xam ne dafa ànd ak njabootam ànd ak famem di dem te pourtant moom kenn la de loolu yéeme na sallallahu alayhi wa sallam mu ne ka lu lu dafa mel ni wurus la moom yonent bi almaknuuna boo xam ne dañ ko denc fii sadafin ci xor xam nga sodaf maam Cheikh mooy euh, li couvrir wurus jama li koy couvrir loolu lañ naan sodaf min maadinay mantiqin min huwa mubtasimin waaye xam nga yonent bi salaa sallam bokk na ci li gënoon def taaram mooy bu daan wax day mel ni éclat bi génn leer bi leer bi da daan génn ci gémmiñam yonent bu daan wax leer da daan génn ci gémmiñam wal badru yuniiru tilkat dayaa ji xayra mu'tatat mi Seydi Hadji Malick wax ci xilaas mais bu daan wax da ngay gis lumière bi éclat bi di génn nii ci génn gi Seydina Muhammad kooku kenn daa xam lu mu doon mu ne laa tiba amul kenn ku teey ku sell lu sell amul dara lu sell cheikh nee na yaadilu turban bu bu yamook suuf bi ñu denc yenent bi damma adumahu mu ne suuf bi ëmb yenent bi suuf biñ ko denc nga dem ci rawdu yonent bi ah, yàlla bum ñu ëmb waaw yàlla bum ñu ëmb yàlla nañ fa dem mu ne tuubaa texe ñeel na yàlla na texe ñeel li muntashiqin min huwa multasimi nee na ki dem ba ci bàmmeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nga fóon ko nee na fóon boobu nga ko fóon rek texe xëy na ay waay Touba texe na Touba texe ñeel li mun tashaqin ba teg bakken bi foon ko wamul tasmi wala mu jël gémmiñ ba daal di ciy foon yàlla na suñu borom defal ñu tawfiix ba ñu dem mucc ko ba ñu dem foon ko rawdu bu tell boobu akrim bi hadihi rawda sharifa rawdat nabiyina wa xabibina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi kon mbokk yi loolu mooy ñetteelu bunt bi imaam Busayri yi doon ci wax ay mbaaxu yonent bi sallallahu alayhi wa kon dañuy taxawandi foofu insha allahu taala subaak jàmm ñëw ak yéen ci quatrième bunt bi fas yéene waxtaanee li nga xam ne moom mooy juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ak événement yi ci xew yépp kon jox leen dig daje bu suba salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Sadhu